ñun dañoo ngi nii rek ndox daal bañ ko gëj amee léegi mu ngi ci juróom-ñeenti weer xam naa ne bu ndox amee lu néew ku néew téeméeri bidon ak ñaar fukk danaa yendu teg ko sa nuñ koy waxati une ci guddi ba six heures de matin laa ko daa duy boobaa léegi sax mën na juróom benn weer waaye genn ndox moom amuñu ko ñu ngi nii fi ne damay jekk ba njël ma bëgg a dem julli jàkka du ma am lu ma lu ma sëlmoo damay lemu waar ci ci ci basan gi rek banque ba ba jant so ñun daal sonn na ñun waa Touba Jéemul bu gën ñu dimbali daal même wax naa ko rajo yi fu ne woote naa fi wala fajiri yi fu ne woote naa fa Mamadou Matar Sarr jot naa ko jot naa waa ji wax Basiru Amar waaye mënuñu ci dara ñun daal ñu ngi nii rek ndox daal lañ bëgg dimbali leen ngir yàlla ak ndox suñ jigéen ñaa ngi nii xasaw xun bu guddee koo ci jege da ngay ndax xet gi ñu yor macha allah waaye koo mu xet nag koo mu xet nag wax dëgg yàlla munoo jëf la yalla xam doy ne xam ngeen ñu xam dañoo xasaw xunn kenn nañu jege dimbali leen ci ndox la ñu bëgg dimbale nañ ci ndox ndox la ñu bëgg wasalaam jàppale leen ñu ñu ngi dee suñ quartier baa ngi dee Touba jéemul fii ci monument bi jërë ngeen jëf sëñ bi yàlla ngeen fi yàgg te wér jërë ngeen jëf doonatuñu ay nit koo gis dootoo xam lu mu lu muy nuroo te nag kenn daaxuñu de danoo sonn rek lakk nanu ba ñuur ku woo nanu koŋ dox nan yanu nañ ba mbooleem kuy mocc ci Touba Mbacke moccal nañ suñ dënd beeg suñu bopp ay waay sëñ Mountakha Mbacke dimbali ñu Touba ca kanam dimbali yee ñu ngir yàlla ak jëmi sëriñ Touba Mbacke sonn nanu de sonn nanu dee nanu damm nanu root nanu roota roota root ba xamuñu lu nuy nurool ku ñu dimbali nag ñu jël ñu naan la ni ñaan bëgguñu daw nan ba sonn barke Serigne Touba bëgguñu dara bu dee Touba ca kanama kenn mënuñu ca. waaw bu dee daayira ba kenn mënuñu ca bu dee wote xel xoom kenn mënuñu ca waaye ndal sëñ Mountakha noo ngi lay ñaan ngir yàlla ak yorante bi ak jëmmi Serigne Touba sun robinet bii de keroog ban ko gasee wóor na ma wóor a sëñ Touba ne liñ ci fare mu ni su la koo wax mën nañ cee dépassé ñeenti weer nu fare ko ci. ba ndikkee robinet bi daal lànk na toog leen foofu bu dee mën a kenn tooyal sa guddi yaa ngi dégg ñu daal di mer loola nan nañ xëcc wan ba xam ndax mu dem te ba seebee ñu daal di xëcc wan man damaa dem rek biti ba dikk fekk wan bi tege mën na leen fu ngeen xëccee wan ñu ne dañoo xëcc wan may leen li ngeen xëccee wan day mën a nan koo dépassé ndax ban xëccee fii robinet da naanun nu xëcc wan sànni ca ba seebee ba seebee boo ca sotti woon saakub kemb mën na koo saaf ba mu ñor ndax tàng ñun dañoo sonn màggal gi bu gone yi suñ gone yi kees yi suñ gone yi gan yi bu njëkkee da ngay rus gone du fi lekk gone du fi naan ndaxum ndox ñii ngi war moto yi ñii ngi takk sareti mbaam yi ñii ngi jël ci fasi gan ñi ñii ngi jël ci sareti mbaam yi ñii ngi jël ci riim yi ñii ngi jël tata sax danoo roota ren tata moom lan mu jón jël ren mu dina rootal danoo sonn de dañoo sonn yoratul dara maanaam déet maanaam condamné boo condamné dana ma koy teeroo ganu sëñ Tuubaa wóor na yàlla ndox nga koy roote ba mu set wecc wecc wecc wecc munoo am loo gën a leegan ndax ndox rek na sëñ bi boo nu dimbalee ci ndox nu jël ndax teewo bi dégg naa ñu ne teewo bi doon na ñëw waaye teewo bi ba ñu tàmbalee ba ñu tàmbalee tali bii ci forage dañ koo gas a gas ba ndox mi di ñëw ñu lem ko reye ko dañ koo lem reye ko lem reye googu na ngir yàlla nañ ñu ko seetal jeexal nu ko fu ko reyee ñu tekkiwaat ko fa di dimbale ma ñun de sonn nañ ñun sonn nañ wax dëgg yàlla fa sonn yem de sonn na sëñ Muntaxa nag noo ngi koy ñaanal mu yàgg fi te wér ndax ab yenam yaana te sëñ Muntaxa baax na sëñ Muntaxa ayam gi neex na ceeb yi niin na lal yi nooy na kër yi nee na am na jàmm waaye ndox daal la nu yàq ndax nun fóotu nu sanguwul koo ci seet muy dem mu ñuul kuk nuruwut nit ndax bala ngaa mën a leer dangay lekk ba regg naan ba maa ne fóot say sir mën a dem ay yéen ñi nga xam ne nag yéen a ci mën a wallu nit rek ngeen wallu na ci nag dimbale na nag te yàlla rek nag tax ak Serigne Touba nag nuy wax nag asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu waral biñ ko fi gaseeg léegi wol kee moo faykat taxawoon yor bigam muy paa baa nga nee toog. ma ne ndox mi ndox mi depuis ñaata ñaata ban temps ngeen toog amu leen ndox. màggal ga bare màggal ga baytu la. Ah. màggal ga màggal daaw ga. Ah. ba fii mu nekk. Ah. lu ñuy naan dañ koo rot. ab sare ngay jël def ci ñaar fukki brique ñaar fukki ñaar fukki bidon. waaw. ab sare ngay jël def ci ñaar fukki bidon bidon boo demee fukki dërëm ngay fay yi sax ñu ne fukki dërëm juróom. son nañ lool. sonn nañ lool. jigéen ñi sonn jigéen ñi sonn mu kenn mu la xool. kenn mu am ndox daal moom moo lu bëgg. waaw waaw man daal maa dégg ñu naan xaw ma defarkati goto yi ñoo ko dagg xaw ma xaw ma ko def daal. loolu daal xamu ko daal. sonn nañ daal sonn nañ daal depuis ba liggéey bi daal la robinet boobu la bëgg gën a métti. ne ga sax daana daana daana xel bu guddee. bu fajee mu dog waaye bi ñu commencé goudron boobu daal jotul dara son nan de son nan lool waa jiimu son nañ lool lool son nan lool lool lool lool. léegi yéen bëgg. ah lu ngeen bëgg. lan ngeen bëgg. xanaa kay bu fekkee ne nañ ko dagg fenn ñu tafalewaat ko mu ñëw. soxlawaat bi sax day day day daar daar daar mooy il faut que mu am ay camion citerne yu mën a dugg ci wàllu koñ bi dinañ xanaa. citerne bu di kee dañ koy xëccoo ba dañ cee xeexoo. bu benn bu kenn ñëw lu ñuy naan dañ ko roote ci sareñ yi dañuy fay bari ko ba ne bari bi doog mën nañ fukki dërëm ci ñaar fukki bari ñaar fukki dërëm dana mën fukki dërëm benn oto mu fi di may dikk di may te balaa ñu balaa ñuy par ñoom dañ koy xëccoo ba xeex son nan de son lool son nan lool ku nu ci dimbali nu jël jigéen ñi sonn nañ guddi sonn nañ bëccëg da ngay xëy loo jàpp sax doo ko mën a am ngay toog bëgg a reer loo def ci sa sa raxasoo doo ko mën am te yàgg na lool lool at mu jot fii na ko kasuraaj bi la commencé woon te bun demee danañ jàll màggal ga ba ba romb ko ñee ñu doog am ndox te loolu yow ñu yaakaar na dara ada cee laxas ku nu ci dimbale daal lu ngeen man war ngeen cee taxawu jigéen ñi sonn nañ lool lool lool sax dama leen tooñ naa leen sun sun sunu yaay noonu lañ sonne woon dañ daa dem ci saan yi di rooti guddi jaay di leen foofu ne ko ñuy daw kon nag da ngeen ci xaw a barkeelu tuuti toujours loolaa daal daale leen seen xel waaye fu sonn di àgg fu sonn di àgg àgg nañ fi fóot bañ ko gëjee def kenn xamul kañ ndax amoo loo fóot yow amoo loo lekk tam fóot doo ko tal ah, wax dëgg yàlla soon nañ lu ngeen ci mën a jàppale ak ngeen jàppale lu ngeen man ngir yàlla Ndakaaru fii ba fii ba fii ba Madiyana noo ngi nii mboolem jeeg fi nekk xamatoo looy nuru fóotatunu sangootunu te kat ji jigéen gënuñu ñun bu dee màggal ga ñoo nga ca bu dee daara yi ñoo nga ca luñ ciy jëf rek suñ loxaa nga ca biir te wax dëgg yàlla amuñu ndox moo xam ne du ndoxay nit ku amul ndox amoo dara damaa bëggoon ngir yàlla li laay war a sool ne kam dégg ngeen ñu gis ñu ngeen dimbale ñu cim ndox dimbale leen ñu ndox soxla nañ lool gone yi ñoo ngi nii ku nekk ab siwo tàmm nañu root ñu ngi gone gu tuuti rek mën ngaa yanum siwo dimbale leen ñu gis nga e eh, fa ngay taaj gis nga ko nii ak téeñam bi moo ngi nii root la ñu bëgg ndox la ñu bëgg na ci bii lañu daan tàng dañoo defe na xam naa ci bii la ñu ne nañ xëcc beneen ñu xëcc beneen booba na leen toog leen foofu ñun daal léeg-léeg da ngay teg sa cin ba na a taal doo am loo ko ñulube nga la teg ci suuf kenn amul ni nga ko xoolee nii 30 Baye Modou Diakhaté bi ni nga ko xoolee nii mm. benn la ba kàdd ga wóor na sëñ Touba lekk nu naan nu root rek booba ba léegi waaw root rek ca màggal ga mën a gëni sama yére sama gone mënatuñ koo fóot mun ñoo def dara gis nga oto mbalit bee def naa ca ñetti saako ndax saa waa kër noonuñu ku naanu doo fóot waaw léegi liggéeyatuma dara gis nga gerte si gis nga gerte si moom laay saaf te léegi ku naanu doo jënd gerte samay gone sonn nañ aw ma ndox ma ma ko ndox ma ma ko maree sax amatuma ko amatuma sax ndox ma ma maree waaw bu ma xëyee rek day su ma xëyee daal lu tilim rek naa ko sànni yow ta mbalit ba ndax sama waa kër mu ñun ku naanu doo doo doo doo fóot waaw mënutuñ koo fóot waaw yal na la yàlla jàppale asalaamaaleykum Touba ca kanam noo ngi sant yàlla di sant yonent bi sant sëñ Muntaxa te yàgg te mu yàgg fi loolu te wér te lii rek cat la rek ci ceg ayam waaye kenn doon dox koog ay bari na jàmm bari na salaam am na yërmande attan na dëkk bi yëpp na tool bi yëpp waaye loo gis lu ne am na cat pajam gura bu ne am na sànkar xam naa loolu la rek waaye nun jàmbatum ndox sax warunu ndax lu nekk ci dëkk bi ko ci war a def waaye nag ku dimbali nu jël ndax nun mag ñi léegi nax gone lu féete woo mënatunoo noo yore gone yi seeni ndey di wërim ndox noo ngi sant yàlla nag bu baax nag tey ñaan yàlla mu yàgg fi te kanam moom dëkk bi sama dëkk te pourtant ñoom ñëpp a yemoon rek ndax ndox mi doo ko ñu ko <laughs> eh, dara lii séen yi borom a yor ab ab kee di ko di ko ci def mi ngi nii dara mi wow koŋ. buntu kër suñu mbedd yi yëpp la ndam booleel ndox bi dañuy root ba bëgg a dee ñoo ngi nii suñu too yaa ngi nii suñu xale bu taxaw jeex na waaw bu taxaw jeex na toog ba fay ñu ngi root ba bàyyi suñu mbedd yi daal la ndam sonn nañu lool ñun waa Touba ji bu sonn nañu lool ba njaxaay ñoo ngi bëgg a dee xamuñu lu ñuy def ak lu ñuy wax ndax ndax lii bi ndax ñàkkum ndox ñàkk ñàkkum ñu ndox amuñu ndox am na ñoo xam ne màggal ba léegi ñu ngi root am na ñoo xam ne Kazu Rajab ba léegi am ñu ngi root man ngaa ñu ñu dem ba xool suñu basee feesal suuf waaye ak ndox du ci toq ci guddi da nga fanaan ci teen ci ci mbaam yi di root bëccëg noonu gis nga magasin bi nii dama ko duy abi nag fees am sara daay takk dem ba forage di ko fayum ñu ndox am ñu lu niroo ndox noo ngi bëgg a dee métti na waaw waaw ñu ngi ñaanal sëñ Mountakha Mbacké mu yàgg fi wér ak wérle defal ñu ko defal ko bépp jaboot waaw ñu ngi ñu ngi ci 30 bi 30 àjjana ba si yàlla si nelawe woon baay Baye du Jaxate moom la ñu jëm moo amul ndox ba monument ba hôpital jéemul ba tali garage daaru lépp amuñu ndox ñaari atu yàlla amuñu ndox amuñu lenn lu ñu liggéeyee te ndox moom rek moo ñu manqué. ñoo ngi ñaanal waatu Touba ca kanam di leen ñaanal te ñaan ndox bi ñaan ndox ci sanu quartier bi ndax ndox ci boppam moo ñu manqué ñu koy laaj ci jullit yëpp ñu koy ñu ngi leen koy dagaan di leen ko ñaan waaw. am nañu ñaari atu yàlla màggalug daaw ba màggalug ren amuñu ndox ñu ngi leen koy ñaan. barke Serigne Fallou na ngeen ñu dimbali ndox daal lañu amul jigéen ñi sonn nañu góor ñi sonn nañu ca di leen xamal ne fii si Touba day moom mbir nekk na fi moo xam ne si dox xaw nañoo jaaxal ñun ñi borom kër yi ndax fi mu nekk lu mat ñeent fukki bidon yi fi yoo xam ne si bidon bu ne fukki dërëm ma ko indi da ngay wata wala nga fay saret mu door a mën a ñëw mu ñëw léegi nag noonu nag amul benn benn xam-xam lu may di si ñaan ndimbal lu ngeen nu si mën a dimbalee ngeen defal na ko amoon na si lenn benn pexe nag lu may. ñàkkum ndox mi ñàkkum ndox mi yàgg na fa man dafa ñeenti weer. ëpp na ko. ah. ga bari daal dara amu fi. xam naa daal moom li wér ci wóor mooy ñu daal sonn na pexe nag amuñu ko pexe mi daal mooy jooytu jooytu ko fi ko war a jooy yéen lan ñun mën a jooytu. maa ngi ñaan ci ba doole sëriñ bi yal na leen yàlla ak sëriñ Touba jàppale te sëriñ bi sunu xalifa bi yàgg fi lool ci sunu kanam nun ñëpp Mbacke Balla yal na fi yàgg ndax yiir na nu sàng na nu waaye lii de li fi ñëw de balaa yegg ci borom wata bii bu xëyee du amut benn yitte balaa dugg daa dem duyi ñëw. ñëw ndax waa këram toujours bu ñu rootee bu ñëwee bopp bi metti dagg na ordonnance ba sonn léegi moom moo àngu waaye barki démb mu dafa noo yaay sama dënd bi day metti ma ne ko dënd bi dana lii ku koy jàggi di andi fii foo jaar sa dënd metti robinet bii nag ba mu gëjee xelli ndox ak léegi mën na ñetti at ñetti at laa wax de wan bi moo daan xelli dara boobaak léegi dara ñëwatul kon daal na noo ngi leen ci ñaan ndimbal sun sun yaakaar nun ñëpp nag yéen rek lan yaakaar addina ba àllaaxira nag ak seen bu Mbàkke Balla yàlla na fi yàggat ngeen yàgg fi nag waaw yéen daal lan ci yaakaar ci ndimbal sama najaay mii ñu dendalit moom it robinom bii moom daa alima nopp noppale na moom benn waxtu nag du ko xelli rooti rek oto bii mu yor moom bu ñëwee day rooti ba sonn nun ñëpp ce ci yem koñ bi daal nii mel ñëpp a ci yem nun daal noo ngi leen ci yaakaar bu baax yal na leen yàlla ak sëñ Touba jàppale yow wax dëgg yàlla yal la gëyal yàlla gën a jàppale taxaw na nun ñëpp nu fekk lépp ci barke sëñ Touba waaw jërëjëf jëf nag yóbbante waale sëñ Mountakha Mbacké man Omar Dieng jóge ngiy jajji ñëw fii ci Touba fekk si ko ci dëkk maamam bii nekk Daaru Xudoos li ma leen ci yóbbante nag mooy moo sëñ mon sëñ bi dañ may niróo léegi moom gis am léeg-léeg waa gis man ma bul waxtooti ndax dangaa nuroo sëñ ma ne ko lu tax mu ne ma ndax dangaa nuroo sëñ bi quartier bëgg Bàmba lañ ma ko njëkk a waxee maa ngi koy nuyu te di ko ñaanal fanu gudd gudd gudd gudd gudd ànd ak wér di ko ñaanal mbooloo mi yëpp ak yéen ñi fi ñëw nun ñëpp nu ànd ko suñu borom yàlla may dafa nu gudd ànd ak wér defal ko ñëpp ci barke yonent barke maam borom Touba